yaakaaruma ne journaliste la dafa bokk ci waxkat yi yi nga xam ni dañuy dem ci plateau yi ñu leen di invité ñuy dem ba yàgg ñuy jéem loo xam ne lii bokkul ak li nga xam ni moom lañu war a taxawee ndax yaakaar naa ne journaliste lu mu gàtt gàtt dana am wala dana xam lan mooy éthique luy déontologie luy conscience professionnelle ñett yooyu journaliste dana ko ràññee waaye yooyu li muy am am am njëriñ mën naa am dañ koy jàng ci école wax la yow journaliste bi booy def sa métier nan nga koy defee mu am loo xam ne lii nag moo leen ëpp njëriñ foofu mooy ak nite nite wolof day wax naa nit nitay garabam am keneen ku ne déedéet ndax su dee nitay garabam léeg-léeg nit lor ko kon nit niteey garabam garabam nite mooy garabu nit mooy tee nga def wala nga wax loo xam ne lii loxo day dem gémmiñ tétti bu yóbbu ko ca te loolu moo xew ci réew mii bés bu ne ndax ku taxaw naan nañu fital nañu rey diggante policier yi ak euh, ndaw ñiy manifester ak mag ñiy manifester ak góor ñiy manifester ak jigéen ñiy manifester ci réew mi yaakaar naa ne mën nañ ci tudd bavure bavure mooy loo xam ni séentuwuñu ko ci woon xaaruñu ko ci woon yàlla dogal ko ci waaye yaakaar naa ne duñ ci war a mën a séentu moos préméditation fanaanoo yéene wala nga xëyaale bi yéene wala nga gontaale bi yéene ne su ma àggee danaa fa pattu bët danaa fa dammub loxo wala danaa fa faat bakkan loolu mook àddina ñoo sa ànd manifestation ak ñoo xam ne ñii dañuy taxaw ngir manifestation ba bañ am waaye buñ ko encadré woon yaakaar naa ne lay gën a yenu maana citoyen nag su jàppee ne dañoo jalgatee xàqam jaatu na ci mu taxaw nag ne sama xàq nañ ma ko delloo su fekkee ne nag police taxaw na wala gendarmerie wala leneen lu mu mën a doon ne ko lii doo ko fi coowe loolu mooy indi léeg-léeg débordement yi ngeen di seen ci mbedd bi bu ca bakkan faatoo entre sénégalais mën naa am sax ka faat wala ka gaañ ndeke yoo moom rakkam wala magam wala jarbaatam wala ku ko jege la lool te yëgu ko woon kon loolu mooy liy am kon bavure lañuy ñuy xaar waaye nañ leen jox arme te jox leen ay fital jox leen ay ay loolu ak dof moo koy wax kon ngeen jàpp ne waa jooju ñuy wax benn moxtaar su fekkee ne journaliste la loolu laa jëkk am xel ñaar yaakaar naa ne nag dañ ko leeral ay moom du ko wax waaye ay collègue am nañ ñu wax ban école la jànge ban diplôme moo sanctionné ay étude am ba moom mu mën a toog di wax ne journaliste la bu dee animateur la dafa waroon a yem kon ci animateur bu dee dafa yem dafa am beneen bu muy def it na yem ca loola te bàyyi bii muy def ndax moom mënta chronique bay wax ay musiba lii muy wax xanaa moos la may wax rek réew mi nekkul ci loxo ne kon jëli nañ ko donte li muy wax day jéem a défendre état bu fekkoon ne nit ñi fi jël yoon woon fan yee euh, appel à l'insurrection lii mooy apologie de la violence mooy kaay leen reye kaay leen fàdde kaay leen damm ba nit ñi kaay leen yóbbu seeni bakkan loolu la wax waxul leneen lu weesu lii loolu nag ñi nga xam ne ñooy marche ak def sitting ak ñi nga xam ne ñoom la ñu jox ay ordre ñooñu ñëpp yaakaar naa ne kenn joxu leen ordre faat ay nit ak yóbbu seen bakkan kon nag il faut savoir raison garder réew mii daal toll na ci guddi yu jafe yoo xam ni guddi yu jaxasoo yoo xam ni yaakaar naa ni euh, almet ak pétrole bu dend la almet ji ki ko yor war naa moytu boppam ki yor pétrole bi war naa moytu boppam ñoom ñaar ñooñu dañ leen a war a sorile waaye kuy jamb ba ñoom ñaar ñu daje ba xosub almet fàkk ragal naa ne dangeen ngeen fa loo xam ne lii loxo dana demati gémmiñ bu ko defee kàddu gi daal ñu yemale ko fii di aartu nag bu baax ñuy moytu wax yu ëpp yi man de ci kër wet gu mu mën a doon ak ku ko mën a wax ànduma ci kuy eh, wax ñu rey danañu faat dégg nga réew mi tàkk man ànduma ci boobu façon xam naa ne réew mi daal bés bu waree tàkk la koy taal du aju ci man du aju ci Masamba du aju ci Mademba amul ci lenn loo xam ne lii ni koy jóg taal ko xam ko amul kenn ku mën a wax nañ taal réew mi nit ñi jóg taalal la ko déedéet loo gis ci ak état loo gis ci réew loo gis ci nation processus la processus bi nag dafay def benn courbe nag courbe bi day yéeg di wàcc doo xam ban instant la courbe bi yéeg doo xam ban instant la courbe bi di wàcc loolu ñu am xam-xam ci wàll woowu xam nañu li may wax du loo xam ne lii da nga naan peuple bi génn leen xeex leen tul leen nii ñu génn déedéet da nga naan peuple bi toog leen ñu toog déedéet loolu su amee rek mooy peuple booba ñoraguñu ca la ñu nekk bu ko defee mbokk yi ñu yemale fi kàddu yi di jéglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.